bari maa nga soo comprendre parce que xam naa ni lii du neen parce que bu yow man a yow kañ lañ ko jël tegoo loxo maa yow bu téete mon ami accroché wu si man du ñu wax nga ne Tonz Tonz Tonz am Tonz jëlal coo réglé lii Tonz sa problème lan la nga réglé ko mais je sais actuellement dem naa ci benn sëriñ bu mu indil ma lépp tegal ma ko ci taabal ci mu xoolal ma lool seeta ma lool et je sais une chose dañoo dëddale te kenn dëddalewul ku du sa papa jarul nga may xool man du ma waxantu te sëriñ boobu du waxantu te si nga si dëddale boobu loolu dañ koy yëkkati teg ko ci bopp néew lañ ko dugal teg ko fa te lool du neen moo ko fay jëlee sëriñ bu mag la te neen mën na koo dindi bu ton père daf la liggéey yow liggéey ma man dëddale ñu ñun ñaar jógal ci sa bopp et je sais une chose lii bis boo ci jógul waxuma la lool sax mais gis nga si biir kër gi li fi xew boo xibli see bët nga xool sa pap baaxul il est mauvais nit ku bon la yàgg naa la ko wax nag mais j'ai j'en ai la preuve maintenant jox nañ ma preuve bu jógul sa bopp. nga ne père yow sëriñ bi nee na dañu dëddale ma ak yow. mais dañu dëddale nga ne ma. sa ton père. c'est moo ñu dëddale. c'est vrai oui. parce que père man des fois dama xool rek am benn haine envers ah mais père yow ni complicité bi ñu amoon amatul ko sam papa lu ma wax je n'hésite même pas non sëriñ boobu war na aay ko mais mais yow bi nga dalee euh, fréquenter sëriñ bi ça fait combien de temps. mais loolu yàgg na ça fait plus de quatre ans. quatre ans lu mu la wax du dañ. waaw ah xaatimam daal du laal suuf. déggoo li ma la wax lu mu la bindal. nga sangoo ko wala nga takk ko ah lu mu la ci wax du dañ man maa la wax lii nag te yóbbu naa fa ay nit nit de du yow rek de. non mais bu waxee loolu kon dëgg la mais mais père yow en fait sëriñ boobu xanaa mosoo koo introsé ci sa cas yow mu jàppale la pour nga mën a am liggéey wala quelque chose booy booy yaa ngi indi ay problème je te dis une chose gis nga man sama cas intéressé wu ma xam lu ma intéressé. yow sa problème xam lu ma intéressé yow nga jëm si kanam xam lu ma intéressé yow xoolal nga am koom ba mën a génn ci kër gi régler say problème bi bopp bàyyi sa papa ji nga xam dafa ma liggéey dëddal la ñu man loolu moo ma intéressé. damay bañ sëriñ bi bu bëggee ñëw ci man pour man mu defal ma pour après yow man ma jox la xam nga mën nga dem directement comme yow sa xarit la te ça fait quatre ans mu lay fréquenté ah? te vraiment yow nee nga moom xaati moom du laal suuf na a jàppale au moins nga am liggéey bu ta mais fii mais yow mënuloo mënuloo mënuloo xalaat mais booy juste waaw moo tax ma lay lu tax ma lu ma jóge ci sëriñ bi ñëw di la wax lii nga ñëw di wax la contraire mais pourquoi yow tu ne me respectes pas mais loolu la mais man du ma sa borom ah. mais qu'est-ce qui se passe. léegi yow loo bëgg loo bëgg yow li ma bëgg xanaa. waaw li ma la wax c'est très clair. nee naa la sa papa moo ñu liggéey moo ñu dëddalee. waaw ah tu ne parviens même plus à me donner quelque chose. amatuma dara je n'ai plus rien je vadrouille maa ngi ci mbedd mi taxawaalu. yow mënuloo loo sax pour jox ma. mais fii lan la maanaam da nga bëgg daal ma lay jox dara. mais bien sûr sëriñ bi dafa war a toj liggéey bi nga xamante ne dama laa gëj a jox liggéey bi normalaat ma lay jox. du du nga ko déggee yow. ok waaw loolu ah, du noonu nga ko déggee ah. mais a def fiston. d' accord maa ngi lay dégg père mën nga wax ma calmer ko parce que affaire bi yëpp affaire liggéey bi la te man mënuñu ma liggéey sëf ma yóbbu ma ci armée bi ba nga bëgg ma tegaat beneen affaire mu métti léegi man li ma la doon digal mooy ah comme waa ji yow sa xarit la te nee nga xaati moom du laal suuf parce que lu mu la mës a wax yow gis ko man comme mënaguma dem te yow mën nga dem jàpp naa ni daal attaquant bu jàkkaarloog camp yi ak góor bi rek bu gisee angalam mën naa dóor mu dugg mais di wàññeekuwaat dem ba ci avant centre yi pour mën a paasaat ñëwaat ci camp yi day gudd au lieu nga may yóbbu pour man ma lay jox yow demal sëriñ bi defar la nga am. boy boy eh yow toi tu finiras mal yow yow doo nitu dara yow et puis naan ma xaw ma football xoolal man xoolal man ba may football football loo ah yow tu vas finir très mal moo taxaw naan moo xaw ma platine xaw ma kan day dugal bal bi man je suis un entraîneur un bon entraîneur nag nag waaye va te faire foutre jàllal fële dama ak sa papa sa papa ngoog yaa ngoog dama rek bilaay da gis li ma la wax vas dama rek cëm jàmm ah, naka seen waa kër maa nuyul nga ma sa yaay maa ko gëj a dégg <laughs> mais de ma si hmm. mhm. jàmm ci ummi maa bëgg ñu waxtaan ñu waxtaanati sax lay wax ndax damaa defe ne umu yow boo seetloo sa bopp day di nga jéem a changer tuuti umu ba nga faboo bay dem lu ne def nga ko fi lu ne wax nga ko fi kenn jëliwu la yaa ba yaa nga indiwaat sa bopp ci nga war a xam ne kon nag war ngaa seetaat sa bopp umu umu kër gi nga nekk ku ne benn nga ne ko fukk ku wax nga di woo laa lu dugg ko umu ñii ci kër gi duñ say wujju ba ngay defanteeg ñoom déedéet man mi ñuy wujjal sax defanteewu ma ak ñoom kon yow waroo defanteeg ñoom say goro lañu boo ma respecté woon de fa nga ma teg nga leen di teg sa papa mii ci kër gi jur sa jëkkër nga di ko def loo xam ne nii bu mii sa jëkkër ñemewu ko def boo ko tontoo mu bëgg a rey boppam loolu rafet na ñii nga bëgg a def ay moroom ci kër gi duñu say morom. dama bëgg nga nekk nit sa sëy bii ngay fooyee nga ba ko yaa demoon nag yaa indiwaat sa bopp sa jëkkër nag wax naa moom waaye gëm naa ni boo moytul sa bopp laax bu set dana la lakk moytul bu baax umu yaa ngi nii nag naan sa jëkkër ay nañu beroog nañ jël appartement bu ngeen jëloon appartement ngeen dem bu ëllëgee mu takk yeneen ñetti jabar indi looy wax góor la waaw loo signé moom du polygamie néew ma la day takk de waxuma ko waaye bis bu koy defit xam dama bëgg nga nekk nit umu sëyal sa sëy bi li ma daj ci kër gii ñaanuma yàlla sama noon sax daj ko waxuma la ak yow mii sama doom jël man lu ne muñ naa ko fi lu ne daj naa ko ku yor sa mbalit xëppuma ko ku am sa wax ju jooy wax wax ma ko yow kenn dala ko fi yow kenn defu la kaar bi kon ana lu fi jar yi man nag maa gis ma dem damaa jël encaissé rek di muñ te xam ne yàlla aji muñ ji la àndal mu fonkal sa sëy bii muñalal sa jëkkër fonk ko fonkal ñi ci kër gi ndax say goro lañu man daal lii laa am li may wax te defe naa ne dootuñu toogaat ma di la waxaat loxo ji ndax bis bu yàlla sàkk ma dëkk ko ci sa nopp amal jom sa sëy bii man daal lii laa mënti wax te sa jëkkër nag jàmbaar la góor gu baax la gu neex a jur la te jëkkëru njëkkante la ah. keneen ku ko amoon fii ci bitit jël boo ko sàgganee nag ba mu rëcc la ba wuti keneen yaa ko yóbbee sa bopp sëyal sa sëy bi man daal li laan ci lu ma lay wax boo ko defee xayrun am jàmm boo ko deful it boo liggéey lu am rek nga xam ne yaa ko liggéey waaw yaay dégg naa bu baax li nga wax waaye man bi may dem amoon naa sama ndigalu jëkkër moo ma ne woon naa dem dëkk ba ndax dama fa amoon xew waaye dama dem ba seetlu ne daf ma faa bàyyi jël ma loolu doon loo xam ne dalul woon sama xel ndax yàgg naa fa bu woowu ma nemmeeku ma jël siwu ma te ba ma waxtaanee sama bàjjan xamal na ni ma xëy na xale laa waaye maa nekk ci erreur amaana ñoom niñ ma yabee woon su ma ñëwee woon noonu kon su ma demee sama jëkkër dina ma dabb même bu dee ñaari waxtu waaye ma dem mu bàyyi ma foofu kon ça veut que namm ma woon kenn ci yéen woowuma kenn ci yéen lijjantiwu ma kon dafa mel ni dañoo yàkkamti woon ma dem te man dem arrangé wu ma ndax bëgg naa sama jëkkër bëgg naa sëy moo tax ma jóge suñu dëkk ñëw fii bëgg nekk ak sama borom kër moo tax ma jóge suñu dëkk ñëw fii kon yaakaar naa xolaat sama bopp jot na xëy na tamit wujju moom kenn bokk ko wujju yaay booy yaay boo sañoon doo amee wujju ndax am ay wujju moo tax kër gi neexatul xam nga su ma demee ba teg sama bët ni sama jëkkër day doxaan yaay loolu neexul de ah hmm. neexul yaay dama ko muñ toog loolu taxul woon ma dem mais tamit du woon lu ma neex waaye nag comme noonu nga waxee dégg naa li nga wax li ñuy wax rek fi mu ne damaa muuraat sama bopp ñëwaat ndax sama bàjjan yab na ma te lim ma yab loolu laay sëy incha allah boobu leen leen naqari ci man. xam nga góor boo demee ba boo demee du la woo du lijjanti du la ne ñibbisil du la kañ ngay ñëw ah ñu ci kër gi kenn namu la nga dem moo muy jàmm ci ñëpp ci nga war a xoolaat sa bopp. ndokk yàlla nag ba nga xam ne say mbokk ay nit lañu am nañ seetlu am nañ dégg-dégg te nañ la. li ma lay wax daal mooy nga téye sa sëy bi awma leneen lu ma ci teg dootuma toog a teg yow nag nee naa la naan la lii walla lee ndax mënuma bés bu yàlla sàkk ma nekk sa bopp bi di la ko répété. waaw amal daal toog sa sëy jàpp sa njàmbur ñi ci kër gi nga respecté leen. cër bi nga may jox nga leen war a jox ñoom ñëpp maa ngi ñoo ma yem ci yow say goro lañu. waaw moom dootuñu bàyyi. Ah, kon yow mujj waaye lii lay waxati yow ñi ngi wax lii daana la juñ yow ana luy sa yoon ci loolu nit day fekk luy waxam mu di ko wax ak lu yoonam nekk mu bàjjantu sa morom sa bàjjan la sa bàjjani jëkkër la danga koo war a jox cër na mujj tey ma dégg ko ci sa làmmiñ sa yoon newul ci loolu gas ko fii suul bu ko fi ngaangati mhm. ci kenn ma su ko ma demee ba defe da ngay changé nga xëy defati lu ko rawati def ah, ci àddina dama rek lu ci sa yoon dama la ci wax dara wala kenn wax la ci dara baax day maandu maandul ah lii tamit ah, ah naa leen de nuyu naa leen maa ngi doog a dugg de boobu ba tey waxuma ci af thème bi waa groupe no euh, stress nopp sa jëkkër toppatoo sa jëkkër kontaan naa ci yéen li ngeen wax nag foofu dong la gis nga góor danga koy wormaal ki te góor am na loo xam ne da ngay toppatoo sa góor daal ndax góor lu ko tee yomb na respecté ko bëgg biiram di ko jox muy lekk di ko jox muy naan bu mu tilim bu mu salte bu mu def dara nga koy bégal ba mu baax man daal kontaan naa si thème bi bu baax a baax a baax respecté gën a respecté sa jëkkër jox ko cër xam-xam mooy kan nag ndax kilifa du tuut man moom macha allah yàlla daa def ni dama cee daal sama waa ji dëgg neexul ah macha allah lépp lu ma bëgg mi ngi ma koy defal barki démb rek 300000 la ma jox tegal ma ko stable bi na ma jëndal or ndax jigéen or du dëgg sama jëkkër ji daal macha allah li tax ma réew man xam naa ndax moom ma réewal di ma toppatoo di ma bégal yàlla na jàmmam yàgg loolu daal la nopp sa jëkkër dee leen gën a toppatoo seen jëkkër rek gën a respecté seen jëkkër xam ñooy kan man daal loolu laa leen conseil di def ni man man macha allah def doxuma waxuma suma jëkkër laa am di ko bégal di ko toppatoo def leen ni man waaw sama jëkkër teg ma place nag xam maay kat <laughs> waa kat maa ngi duggaat léegi. Eh. mais seen seen groupe bi nu mu nopp sa jëkkër suñu groupe bi macha allah. non mais c'est bien. Mhm. Euh, xam nga dañu ni. Mhm. fen daganul waaye fen wuy defar sax baax na. te duma ni sax da ngaa fen gis nga loolu nga wax. dama ko exécuté sóor naa pour jox la nga jëndi or. dégg li kon sama wax nit loolu lañu ñu wax. Mhm. nit bu la neexee réere som bi jël diwlin taxal say loxo say tuñ ko xam ne defe ne soos nga réere. kenn da koy xam ku lay xamal. mais lii la nit day sagal boppam. waaw du ma bi ñoom ñëpp ku ne day wax sa jëkkër. groupe bi baax na lii laa bëgg. groupe bu ci génn de. waaw ah, du ma ci génn. Ah? li nga fi am de jaayante maanaa. sama jëkkër jox na ma lii may na ma oto may na ma lii loolu dong fi am. sagu rek ku sagal sa jëkkër sa bopp nga sagal. da ngay sag ah? moo tax nag dama lay sagal. li may xaar bu bu ñëwee nga bu ñëwee waxuma waaye di nga bëgg. mais na nag. mi ngi ñëw di. yéex na ndaw laay doon. sama jëkkër ji hmm. xale bu yii daal seen groupe bi am na solo. bu leen ah, bàyyi de bu leen bàyyi. ah am solo. donc kese. mu yii man yii laa xam waaw. wàññil wàññil affaire yi rek. bul bàyyi mais lan ngay jël set. <laughs> Eh, eh, kii na arrêté ah? ma eh, kii na arrêté de. non yii mooy lan. doomu doomu. defal ndànk. eh eh yow laay waxal arrêté lii <laughs> eh, eh, eh yow man maa ngi soog comprendre. man kay ci recette ba. ndax nga naan ma erreur laa def dama bëgg nga kii mu arrêté yow sax nga arrêté. mais yow bu ma xoolee am nga ñaari yoon tante nga ci man pour assassiner ma ma rëcc kon yow kii ngay déglu moo tax nga bëgg maa rey lii mu fi lim nga naan waaw ak nangam sangam. waaye kii eh, man du ma seen kabaayam waaye dañuy teg ci heure. mu teg ci heure. man kenn du ma rey sa yii laa wax na arrêté. ba na da arrêté laa wax lii laa wax. mais lan lay arrêté yii ngay déglu di ma bëgg a rey ah maa ngi soog a comprendre yow xamoon ci dara kii moo lay jox affaire yi kii sax boo na kii dama koy porté plainte non c'est vrai. jigéen fem la ñu woote nopp sa jëkkër. ku ne loo am da nga ko dugal jigéen fem jigéen rey nit. seen association association rey nit la da ngeen maa bëgg a rey yéen mais lii du sotti. fan nga jëm fan la damay defal li mu wax kan. jox ma xaalis damay defal nga boo ma euh, moytuwul nga naan jox ma bu ma la jox da nga wujj sa baay. waaw lii moom sëy la wala lan la nii ba maa yow sëyatuñ de ndax ñemeetoo ma sëyatuñ de waaye léegi lu may utiliser yàq sama xaalis doo ko naan pour lan te maa ngi ne dox si ba sonn yàq sama connexion kii vocal ma wax ma li may wax ma nar see sonn nga naa ma lii ak man bëgguma ko ragal man ba may xaw ma sax lu may wax man. te Ndiaye moom daf maa sono trop ci Viagra man Viagra moo ma indil problème yi yëpp mënoon naa wax euh, xorom koole bee kii bi dong ah. Fatia. Ibou loo def kaay kaay kaay dama laa soxla. Ibou damaa bëgg ñu waxtaan tuuti. ndax fan yi danga may romb ci kër gi di ma romb kër gi soo ma xasee ba nuyu pare nga ci man dama laa bëgg loolu sama biir xol bi nga bëgg ma lool bëggoo dara lu ma naqari ma ne bëgguma dara lool naqari hmm. ba tax na man ba may romb nii di dem ak gauche ak droite man loolu daf may jaaxal hmm. sama diggante gi ban problème moo ci am. non bàjjan bu xalaat loolu amuñu benn problème man benn bàjjan laa am muy yow. bàjjan day bàyyi de. bàjjan dama la romb nuyu ma la. nuyu nga may nag may nuyu daaw ma ko nuyoo di. ah mais naa ne romb ñu la bàjjan na nga def. benn orange ak ak ak su banaana sax ni ma bàjjan am am xéwlu. ah non du loolu sax en fait bàyyiwuma ko mais dama war a bëgg bàyyi un peu comme fi mu toll nii da nekk ci benn état bu xaw a critique te man yooyu jotuma cee xam dara donc comme yow vraiment euh, nii nii nii nii sa état de santé xëy na yenn yi aliments yi waroo koo lekk te bugguma jox la loo day andi jéem mais nag jàppalu ma la yow amuñu benn problème. naa la romb nag nuyu la dem parce que bëgguma vraiment parce que keroog ndeñaay dégg naa ko mu naan xam nga waroo sax ak da ngay am ay problème mu tension waroo mer ak waroo yuuxoo ak yooyu te bëgguma aussi mu jóge ci man daal mais jàppal ma la dara. bu bu fekkee ëmb bi daa naqari nga wax ma nga boole ma ak sa mbokki médecin yi ma xool nu may def ëmb bii. subhanallah en direct. yow mi bàjjen li nga xalaat sa xel mi baaxul bàyyi ko ci mais pourquoi ngay dindi ëmb. dindi boo ma dindi ah moom fa nga jëm kat. solution boobu nag mooy li ngay bëgg a wax. te loolu moom xalaatoo ko yow man dégg naa ne danga ambu ci ëmb bu normal yaa ko wax ni da ngay bëggante ëmb dalaa dal comme ni mu mën a dalee ñëpp yow mère bu branché nga. mère nga boo xamante ni day am far. mère nga buy ñibbi si à deux heures du matin. mère nga boo xamante ni day ànd di balaadewul di laal glace di def sa lu la neex. ak sa lu la saf man dama mës a balaade man dama laal glace. ah conseillé nga di. ko man maa ñàkk fayda kon. ah non yooyu yëpp man waxuma ko mais daal doo bëgg nga comprendre ni yow li la dal nii bu ci am ay benn stress parce que mën naa dal ku ne mais yow aussi nga comprendre ni lu dagan na daal li dagan na de. man dinaa stressé ndax li nga may nekkee ci man dinaa stressé li yaa ngi taxaw na may glace congelé nga danga branché dangay xaw ma buloo xaw ma. c'est que man kay vraiment man xam nga xam nga tas suñu yaakaar tuuti na parce que vraiment mer nga boo xamante ni xalaatuñu woon ci yow lii. waaw du yàlla moo ko tudd ana yàlla. yàlla moo tudd li nga def at bu tonn yow ngay insomnie ci kaw lalu jàmbur. insomnie ñëpp la mën a dal bu insomnie ñëpp la mën a dal. mais da ngaa insomnie nelaw. insomnie mooy lan sax. bañ ci carte bi. bul wax bul wax bul wax ngi dem. bul wax bul wax. insomnie insomnie moom nelaw la wala lan la man man ma ko jëmm toll ma damay amee insomnie bu ëmb nii ay dëkk bi yëngu na bàjjen insomnie en état xanaa accouchement général rek li may wax pour yéen ñëpp la man duma dee te yàlla reyu ma nit njaay di ma rey loolu la jeex waaw xëy na daa am ku feeñ la rek waaye ñi may bëgg a rey bari nañ man daal bu may wax ñee dinaa leen mais am na ñoo xam ma aayee ci ñoom sama fit day rëcc ñaata yoon la ma fi Ndeye Ndiaye xamloo ma rëcc ci loxom ñaata yoon waaw waaw dinañ ko wax ci réunion mi ñi ah kii dama ko waxul xam naa néegam ñaari yoon kan ah, yow mii asu ah, eh. kon maa fenle waaw ah. xam naa négam ñaari yoon yow man dama a yow kii li ma ci naqari day xët di conco asu <laughs> xët yooyu nag génn ci man dem dee naa ba yow wa loolu yëgu leen ko ah ñaari ñee daal bu ñu waxalee yàlla du ñu ayee sama fit dina dar ñoom au moins xam na ni mag la ñuy sëyal ah man maa ngi bëgg a dee loolu nag jeex na bis si tey jël naa ay décision ferme waxtaan naa ceeg bu jënd naa chaîne gu rëy pour bâtiment bee falaay tëj sama bopp trois mois kenn du ay eh. waaw ku ci war a aye bu moo lay fooy ci bunt boo yoree kaas doo dugg boo yoree laxas doo dugg boo ëmbee morceau doo dugg yére bi ngay sol dom moo lay dugal ci biir bu moo yor programme bi leer na nañ loolu na nga naan kañ ma te kuy dem soirée Wally Seck lii comme da ngaa amoon fit ba takk sa ñeenti jéeg rangale da ngay assumer. ngeen xam ne ah. man ngeen di see. xoolal ma man lijjantiwuma lool ma xam lu ma ñor. ba bu guddi jotee ma tëj la ci néeg. Mm-hmm. salfaañe la ba nga nooy ma jël la teg la man joxuma la nga naan joxuma la nga lekk. xanaa ka façon bi may defanteeg yow peut-être moom la sa yaram ah, ah, attan te façon boobu moom bu na la leer na la loolooy continuer ah. kan la nay ma teggi sama loxo loolu jeex na tey bul teggi sa loxo hmm. mës a teggi sa loxo eh amul jot ñoo ci jot amul neex xanaa bu jox leen ko yow ba yow mooy programme bi bàyyee eh, damaa bëgg nga may ma sama jàmm kat yow hmm. dégg nga li ma la wax ñoo takk indi ñu suy kër gi. Ah. lekk ak naan dong mooy sëy du mooy sëy ngeen na. Ah, yow mag bi est-ce xam nga ne ay xale nga takk. Ah, xam naa ko. ñu. yaa woote polygame di takk ay jabar. yow yaakaar nga ne réew mi yow. yow déglu ma. man sama yoon ne man xaw ma nii de waaye man sama ka man togguma ci benn kër trois mois te ma ay ay dangaa gën man nag say suuma nekk ci néeg boo xam kër goo xam ne sama jëkkër day beru di berberu da koy fekk si fekk jiw ma kenn samay néeg ngay ñëw riig ko fa jël sa njël ba mu jeex bu la neex fu neex riigaat ko ah. sama yoon ne ba mu neex waaye man sama ay ma ko benn géretien <laughs> géretien yu seytaane yéen ak ñoom comme ñoom noonu neen noonu lañ bindoo ñaar ñee ñu mujj ñee nga a fase nag ñooñu moom ñooñu moom ñoo xam buñ la mayee ay ak bu ñu nekkee seen biir yi di jaay ibaadu ibaadu seen affaire la sama yoon new doo wala set dama bëgg nga génn ma ci say ma set wet nga ni ma la ko yëgale yow nag bal lan dal yaa ko teg sa bopp ñu may bëgg rek waaw ba nga xamee ne amoo condition physique lan ngay takkee ay xale amoon ah. gëj a am ma fu ma am ko jeexal ci juróomi dërëm waaye dama dara dara nekku ci waaye yow intérieurement bi boo tëddee da ngay palpité yow balaa ñoo xef ak xippi ngay xarab nu may def hmm. kii li may jox ak lam cay def hmm, kii li may jox lam cay def yow ak kee kee sax rax ngeen ko ci léegi yor woon la ku nekk ak may jox may naan yow xamoo sa bopp ndekete yow gis nga leen nag naa la ko xamal gis nga naan da ngay jënd ceen waaw boo jëndee ma jël sama si teg ci loo tëj ma tëj eh, bëggee nga góor noonu a ah, lu ko fi indi ah, lan moo fi indi nga naan ko ndox loolu da jeex na tey bëgg góor a tax mu ñëw ba dama lay visite ñaar ñi nga war a. yow mais yaa ngi ci man ba tey. ah man damaa bind sama leer sànni ku for yaa ñaar ñooñu bu ñu ayee sama xel dal. ah, ah sama fit dina waaye ñoom dañoo def taxaw xas la fi yàq la kete ma wax say yeel yu sew. yéen a ma xamloo ku ne ñaar yooyu dañoo wax say yeel yu sew. yow moom tey xët nga ci boole ki kuccal. yow yow man dama laa ma sa xët. mooy yow yow ngay man. yow man li ma lay jàppee di la def nii noonu nga yaakaar xët loolu day xët. waaye jot rek sànni ma xam nga lu mën a xamal ba li mbëtt bëgg bar bëgg sama ay laay jot ni ñëpp dofoo ah, man mbëtt ak barat ah. si ndax ak margu ci yemale kenn ayatul jeex na takk la ah, waaw dañuy aye bal force yow yow ba doon dimbali sa may soo paree yow jox ma sama man sama yoon nekku ci war a génn ci ay moom sax dafa nag bay ay ay loo dafa war a toog génn ci ay gi ba set huit manga wératoo ñaari mag kay ngay wax ñaari mag. Eh, waaw man waxuma loolu yéen boo mooy say say ba boo a yor calendrier bi. ah bu yaayam yee noppam nag. ah du yow yow da ngaa moo tax yow fi mu toll nii ba boo duggee moom ci nekk ne nem rek defoo dara. jommaloo ba defoo dara lay jommal yow yaa war a génn ci ay ba set wi sa dënn baaxatul te mënu rek leer wératoo du ko de libéreel hmm. nit mën na geer ba ci yàgg sa ne teg ay jaajam ne merci woote fair play wooteel jàmm nga toog sa néeg say doom di la fa fekk si nga ba ñoo ba def amul lu may wax ak yow dangaa sene waxal ma waaye mag gën a bëgg om nag waaw miis café ga <laughs> jox ma sa café yooyu nga war a bàyyi day jënd sax yooyu dangaa yow dangaa yeb sën rek waaye ki gën a bëgg om moom mi ngi nii toog moof balaa nii man de maa tay yéen de leen fi jagale a ah, waaye man maa ci yow dara Mm. saytaane bi nga de en matière moom xamoo ci koo bokkal nday mm. xamoo ci koo bokkal yow mi yow mi dem marché chaque jour dinu gin mm. yow bi ñun suñu sëy bi dañ ko teg moom de baa xam ngeen moom leen sax du libéré góor a may ñu sa place nga raw hmm. café way sëru naale